je ne légitime pas la la la réaction de de, de Farba Ngom militant APR nga warula euh, warul le droit euh, de de de de candidater euh, pour la candidature euh, de Benno Bokk Yaakaar mais euh, ndax xalaatoo ne contexte bi situation bi compliqué na compliqué boo xam ne ñu bari ci waa APR jàpp nañu ne bu ñu waree tànn candidat dañoo war a tànn quelqu'un qui a les chances de les faire gagner. euh, je m'explique parmi tous les candidats dont on parle euh, amul kenn ku ci nekk ñu ci à part Abdoulaye Diouf Sarr sax moo ci gën a néew euh, grade ci bu mu occupé ci wàllu République parce que il est DG mais il fut ancien ministre euh, ñeneen ñi ñëpp ay kàngam lañu ci nguur gi ñeneen ñi ñëpp ay kàngam lañu ci seen wàllu ci seen wàllu gox et que tey ji tey boo xoolee le débat Euh, mu ngi cristalliser wu lu bari bari ci ku mel ni Amadou Ba ab euh, lay Ablaye euh, Daouda Diallo Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ñu doon ay kàngam ci gouvernement bi est-ce que du loolu xëy na far ba a te un peu maladroit mais est-ce que du dafa bëgg wax ne la situation est tellement sérieuse que mënuñu nekk fii di jiixi jaaxa di jël candidat boo xam ne il n'a aucune chance de gagner parce que tamit politique candidat ci présidentielle aussi parcours la quotient électoral la euh, bu bu bu qualitatif. très bien euh, léegi jël nañ anecdote bi teg fële maanaam li ñu waxagum daanaka amul solo mais dafa am loo xam ne ni mënul ñàkk ci ñaar ñuy waxtaan. yow boo posé question sama waru gar mooy tontu question bi du ma tontu ci question bi du teggin waaw te lu dul teggin baaxul. moo tax ma tontu la mais li ma la tontu sax mënoon naa caa bañ a àgg mais li am solo nag léegi mooy ñu ngi dugg ci waxtaan bi dëkk ban candidat moo am chance gagné dama koy baamtu ndax wax naa ko ci sama njëlbeenu wax candidat bi am chance gagné du tur bu mu tudd du fu mu dëkk du am na ñu ko fa topp wala ñu ko fa toppul du caagi nag nekkoon na nangam dellu nekk nangam delluwaat nekk nangam delluwaat nekk nangam kon toogaayam moo gën a jekk waaye dama leen laaj may mun a kim ni nekkoon na nangam nekk nangam nekk nangam ku ko def nangam kenn rek ku ko def nangam ndax moo ci am sañ-sañ muy président de la mais kooku lan moo doxoon digganteem nangam yooyu mu def ñooñu waxuma sama jëmm ji de mais yow sa jëmm ji sax defu la loolu te pourtant mënoon na la ko def mais moom mooy décider. Ah, moom mooy président mooy ah, xool ku ko neex def ko lu ko neex. selon li mu bëgg ak li muy xaar ci yow ak li mu xalaat ci yow mais ma tuuti ma ñëw dama ki nga xam ne nii moom moo am sañu def nit ki lu ko neex lam ko def lu ko neex warul nekk loo xam ne nii nit ki war na ci sukkandiku ni comme def na ko li ko neex tax mu am toogaay boobu kooku moom mooy ki am solo ci réew mi kooku mooy wax waaw pas forcément foofu foofu la wax ji nekk mooy kan moo am solo yi ci réew mi solo ju jaar-jaaram wane na ko mbindam wane na ko euh, taxawaayu ré taxawu réew bi wane na ko amu ci kenn ku ñuy tudd turam te man duma tudd turu kenn lu tax du ma tudd turu kenn na xam nga man kañ lay tudd turu nit ci li ñu ma di élection présidentielle mooy bis bu benn Bokk Yaakaar ni diw mooy sama candidat candidat boobu maa ngi koy wax fii nga dégg ko ñi ñuy seetaan dégg ko su fekkee ni xam na dara ci Sénégal mën xam na luy xar kanamu Sénégal ak xar kanamu Sénégal boobu bu ko bëggee yeesal fan lay jaar su fekkee ni am na ku am na ci lu wér lu mu mën a teg ci loxo Sénégalais yi man Abdoul Aziz mi bind gagné le débat muy sama téere bi mujjee bind kooku maa ngi koy woo ci débat su bëggee su fekkee ni debaa bi dafay gudd te daf koy sonal ndax ñoom aafiya moo leen gënal taxawu réew gis nga ñoo kooku maa ngi koy wax ni su bëggee mën nañ séq benn débat boo xam ne nii lan mooy doon sujet bi lan mooy xar kanamu Sénégal. mais mais mais en 2023 même ma ñëw. Euh, Aziz même ma même ma tontu la. Ah, ah. laaj bi da nga ko laaj leer na. Mhm. mais moom ma tontu la ci. moo tax dama du ma tudd nit mais lenn mën naa la ko wax mooy ki kàddu yi tax sénégalais yi jubóog seen bopp jubóog seen réew. ba mën a am beneen toogaay bu ñu taxawoo seen réew ci jàmm ak salaam kàddu yooyu tant jibul sénégalais yi la ñuy wote duñ ko xam. mais réew du kaddu. mais ma euh, ñëw yor réew du discours. mais ma ñëw ci loolu lay ñëw ci yor réew ah. boobu lay ñëw xam nga xam nga am na jamono nga nekk sama étudiante ma jàngal analyse de contenu du discours politique kon jëli nga ma maanaam maa ngi ñëw danaa tontu tontu bi lan mooy yor réew. Euh, ñi ñuy tudd te duma leen tudd lu dul dama séq ak ñoom débat ndax defuñu ma dara séquma ñoom duma leen di tuddee wala ma leen di ŋàññi waaye bu ñu séqee debaa danaa leen tudd te danaa leen wan ni xar kanamu Sénégal xamuñu ko ba di ko soppi bu loolu wéyee képp koo fi tudd ni takk na ay ndombal tànk am na gox bu ñu ko ràññee gis nga kooku amul dara lu mu liggéey jamono yi nga xam ne nii man maa ngi ci cabinet bi cëdu lu bon bon bu dee benn araf sax ci man la jóge ci sama xalaat.